nga xamante ni émission xam-xam la di dox di wër ñi nga xamante ni yàlla daf leen may jagleel leen ci alxuraan waaye nag ñoo am secret yu nga xam fa la ñuy jaar ba nga xamante ni soxlay jaam yi dinañ ci jaar ba yooyu faju tey ñu am mbégte ñëw ba fii Scat Urbam seet si bu nga xamante ni doomu Saalum la di féetewoon fële ca Saalum léegi nag muy Ndakaaru Cheikh mooy Jo May Mouhamadou moom la ñuy tey suñu émission bi de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ topp ñu ngi leen di ziyaar ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di dalal si suñu makkaan ñu ngi leen di wax bisimilah marhaban bikum wa ahlan wa sahlan. jërëjëf uh, Cheikh Mouhamadou Mahi uh, dama xaw a juum ci tur bi may présenté. Uh-huh. Cheikh bi uh, ñu dégg seen jàllale Saloum. Uh-huh. nga féete woon Saloum. fa jógee jógee Dakar waa sow sawar naa ci euh, laaj bi nga ma laaj ndax Saalum lañu ñu nekk juddoo fa yaroo fa judd ci ay ron kilifa gu màgg di suñu waajur mu jàngal ñu xamal ñu teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim tarbiya ñu ci lépp loo xam ne xam-xam daf ko wundu ba macha allah ba jël lijaasa jox ñu ñuy sant yàlla ci loolu bu baax a baax a baax a baax di ci di ko gërëm di ko ñaanal yàlla. wa alhamdulilah dañoo nekkoon Saalum si suñu waajur bi góor jàng ak jàngale ci lañ nekkoon ak euh, ñaan yàlla ñaan yàlla boobu noonu tey moo ñu indi Saalum jàmm yàlla di sox am seen xaajo di ñu woo ba tey nag ñu ñëw ngir gën leen jege pour jëflanteeg ñoom ci seen xaajo yi ndax yàlla mooy faj xaajo yi. te yàlla dénk nañu ñaan kon luñ def lenn lu mooy mën a dimbalante ak jaamu yàlla yi kon ñu ngi sant yàlla bu baax. Euh, jërëjëf euh, nga euh, juddoo ci keppaaru mhm. mhm. xam-xam beeg di ñu jëflante ci secret yi. Mhm. nga doon ci nàmp nekk ci lu yàgg. fete woon Saalum. ñu ko waxee ci def ay jaloore. léegi yaa ngi yaa ngi Ndakaaru. waa alhamdulilah dañu sant yàlla euh, pas-pas bi mooy comme ni ñu ko waxee ci njëlbeen ga rek mooy ñëw jege jaamu yàlla ngir seen xaajo yi ndax jullit ñi ku ci nekk yaa ngi takku xaajo boo xam ne ñaan yàlla rek moo la ci mën a dimbale ñun nag dañoo yaru ci ñaan yàlla ñu jàngal ñu ko ñu xam ko dégg nga ñu goreel mbooleem fànn xam-xam yi gannaaw ba ñu donnee xam-xam ba pare dañoo sonn ci gëstu gëstu xam-xam ba nga xamee ne teg nañ xam-xam bu bari waxuñ ne dajal nañ lépp waaye lu bari ci xam-xam teg nañ ko moo tax ñu ñëw fi jaam yàlla yi duñu soxla fokk ñu ñëw jëriñ leen ndax ki gën ci nit ñi mooy ki jëriñ jaam yàlla yi. Euh, Mhm. Mhm. Mhm. Euh, waaw sëñ Top euh, seet moom lu am la ndax nit ku ne bala ngaa dugg ci mbiram pour liggéeyal ko foog nga xam lan nga xam ne mooy mbiram foog nga xam ban tabia la bokk foog nga xam rawxaanam foog nga xam ban bunt ngay jaar pour mën koo dimbale moo tax buntab seet yàlla may nañ ci bunt yu yaatu danañu seet ci alquran danañu seet ci kurus kazalika danañu seet euh, ci raml danañu seet ci sànn yu bëri xataa bu xaal bi dikkee sax léegoo-léeg danañuy toog di jàmm wax jàmm bi loo xam ne euh, loolu mbiru yàlla la yàlla mooy dénk euh, xéwalam képp ko soob soob loolu yàlla ñu ko dénk wa anal fadla bi yadillaa yuuti man yashaa ngëneel yàlla koy jox ko ko soob mën nañu jàkkaarloo jàmm bi wax ko ay soxlaam yoo xam ne yu zaahiram yu baatinam mbiru tayam mbiru suba ba mu leer ko naññi taxaw ngir dimbale ko ci xaajoom yooyu ba mu faju incha allah. Euh, man am a laaj. dañu kenn du la faale. na buntu yu ci loxo. dëgg la loolu am na ndax alquran euh, yàlla moo ñu ko wàcceel. mu nekk yërmande ñeel mbooleem mm, mbindeef yi léegi nag ci bunt alxuraan ci lañuy ñuy jaaree ba koo xam ne dafa bëgg am am bu gaaw nga xam ne daf koy ñëwal léegi mu jëflante ci ay cangat yoo xam ne dañ koy liggéey ci ay sunguf dégg nga ak i ay xam ne dañuy dem ba ca àll ba di ko uuti ah, xam bés biñ koy uut ak waxtu wañ uut ak nañ koy uutee nañ koy jëfandikoo yépp bind mboolem aayatu fath yi nga xam ne moo nekk ci alxuraan ak boole kook aayatu risqi nga xam ne mu ngi ci alquran yàlla moo ñuy wax ma farat naa fi kitaabi mi shay'in loolu ci leen jël jëflaat la boole sunguf yooyu jox la ko képp kuñ ko jox ñu wax ne fukki fan ak juróom boo ko toogee alal ju bari joo xam ne dana la ñëwal ci kàttanu yàlla loolu moom liggéey nañ ci liggéeyati nañ ci am nañ ci eh, ay résultats yu am solo ñi ngi gërëm ñi nga xam ne ñoom lañ doon jëflanteek ci yooyu ba nga xamee ne gannaaw ba ñu amee résultat owaat nañ ñu di ñu gërëm. jërëjëf euh, waaw ndax léegi nekk gis fii mm. mm-hmm. borom alal. Mm-hmm. Mm-hmm. am mën suñ topp euh, loolu warul mun a ñàkk ndax nit ki su nekkee ne da ngaa ut ubbeekaay te ubbaloo lu la kaar. amaan na doo fi yàgg wala li ngay taxoon nga ubbi ko amaan na du la jëriñ kon ubbeekaay ak kaaraange ñoo ànd képp koo xam ne danga nekk ci barabu liggéeykaay boo xam ne dañ la fay xeex wala nga nekk am alal joo xam ne nit ñi dañoo bëgg mu dañ sa loxo wala koo xam ne da nga nekk pour bëgg a yëkkatiku nit ñi di la xeex am na kaaraange yoo xam ne suñ ko jëflanteeg yow kenn mënu ci yow dara képp ku tënku rek incha allahu yàlla dana def mu nekk koo xam ne mbiram dafay sooxe jamono bu ne kaaraange loolu yàlla may ñu ci ay bunt yi law dañ koy liggéey ci euh, garabu xay xay juróom-ñaari xay yoo xam ne dafay sax si pénc bu ñu xamee pénc mooy soo demee Saalum fa nit ñi di dajee dégg nga foo la ñuy def maanaam ci dëkk bu ne boo fa demee foofu la ñuy wax pénc pénc yooyu nag boo amee seen seen xas yooyu nga xam ne dañ koy xas ci xayma def ko sungu am lu ñu ko boole ci alxuraan képp ku ko sangoo képp ku la laal dal di faatu waaw kon nit ki dangay ngay jëfandikoo kaaraange ànd ak fatu soo amee fatu ba dangay am kaaraange ndax duwaaw silaul mu'min ñaan mooy ngàndaayu jullit dégg nga kon fokk jullit bi jamono bu ne ak euh, te yàlla wax euh, alquran euh, wax nañ si hadis ne al wiqaayatu xayru min al alaaj nga aar sa bopp moo gën ngay saafara dégg nga nga défendre sa bopp njëkk ba nga xam ne bala ngay bala feebar bi dana ñëwal loolu lu am solo la. jërëjëf Cheikh Mouhamadou waaw bayre mënul ñàkk ci doomu aadama su nekkee da ngaa bëgg avancé avancer fokk nga sangoo bayre pour nit ñi di la bàyyi xel ci sa mboolem jëf foo yëngatu nit ñi fekk la fa foo mën a ne nit ñi fekk la fa surtout koo xam ne dafa nekk ci njaay wala mboolem yëngatu boo ne fokk ngay jëfandikoo bayre ngir sa xol wala xoli nit ñi di am cofeel jamono bu ne ci yow di ñëw di jëflante yow di la jox seen alal loolu bayre boobu yàlla may nañ ci ay cër yu law incha allahu képp koo xam ne ñëw nga danañ la defal bayre yooyu ba nga xamee ne foo foo foo foo foo taxaw rek nit ñi lañ la bëgg danañ la fonk dégg nga danañ jëflante moom danañ di seen xala sax jox la ko te fekk tayuñ ko rekk bayre boobu mooy def loolu bayre dafa am solo ci nit da ne danañ xam ne kii ki am bayre ak amul bayre buñ duggee ci mbir rek da ko xam waaw waaw Euh, alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi réewum Sénégal jàmm rek moo ci xaj euh, ñu ngi ñaanal président boobu di Macky Sall yàlla defal ko jàmm ndax su amee jàmm réew mi rek am ja yëpp am jàmm euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax avenir boobu noonu kazalika ñu ngi wax ne lépp loo xam ne loolu la ci yàlla dogal wala jàmm yi moom lañ bëgg population bi moom la bëgg loolu ñu ngi ñaan président muy dugg ci lu mu ànd ak moom ci loolu waaye yàlla dimbale ñu nag ñu nekk ay ñaankatu yàlla lépp luñ ñaan yàlla ñu ko nangul ñu ngi am yaakaar bu rëy ci yàlla ci loolu waaw kon képp koo xam ne danga am bëgg-bëgg ñëw ci ñun daal incha allah boo ñëwee suñu buntu danañ jëflante yow ci kem talaay ak la nga bëgg ba nga xam ne sa xaajo dana faju waaw ci neegu sëñ topp loolu feebar la boo xam ne dafa lëmbe àdduna bi. góor ñëpp fu mu ni ñu ci ëpp ñu ngi koy jàmbat jigéen ñi kasaali ko ñu ngi koy jàmbat ci seen góor yi ci seen jabar yi seen jëkkër yi kon war na nit ñi fagaru ci wàllu loolu loolu yàlla nañ may nañ ci cër bu law boo xam ne képp koo xam ne ñëw nga bañ jëflante yow ci loolu incha allahu da nga yëg sa bopp li koy sabab nag bari na rab dana koy def ci nit nit ki danañ ko liggéey ba nga xamee ne ngóoraam dootu mën a jog danga gis léegoo-léeg koo xam ne xëccoo jigéen mooy tax ñu def ko ko wala am na koo xam ne léegoo-léeg foye boppam mooy tax moo koy indi ba nga xamee ne saddi ji nga xam ne dafa waroon a dëgëral ngóoram dafay wàññeeku kooku su ñëwee suñu bunt insha allahu rabbi yàlla dana ko dimbale ba nga xamee ne dana jot boppam ngóoram googu doot dana ko am te dootu ko ñàkk ba illaa yawmi diin kon ñi ngi wax ne képp koo xam ne ñëw nga ci wàllu ngoro danañ la ko fajal ci nam gën a gaawee ba nga jot sa bopp ba nga xam ne dootoo am benn jafe-jafe ngóoro te loolu ci alquran lañ koy lañ koy faje ak suuf. Euh, léegi uh-huh. euh, uh-huh. euh, uh-huh. mën na loolu mën na nekk Serigne Top macha allah nopp moom fi lañ ko fekk tamit. te am nañ ci gëstu bu yaatu am nañ ci bunt bu yaatu ci wàllu nopp ki nga xam ne dafa nekk ak jëkkëram jëkkëram win ko wan ko gannaaw koo xam ne dafa bëgg si ndaw ndaw si wan ko ginnaaw ak koo xam ne dafa nekk ak patron ba patron joxul ko cër bi mu ko war a jox ci ba makkaan ba muy liggéey ak njaboot gi nga xam ne dañoo tasaaroo nga xam ne li leen tasaare seytaane mooy jaar seen diggante loolu dafay war nga def si diggante nopp si ñoom pour li leen euh, jubale ndax loolu dafay jëriñ askan askan suñ juba jubawut wala ànd bu ne suñ jubawut rek yàlla mën na ci indi fitna te fitna baaxul kon nopp lu am la incha allah yàlla may nañ ci ay cër yi law ñu koy jëf te képp kuñ ko jëfal kañ la koy defal incha allah dana la topp ba mel ni xaj ak boromam loolu moom lu góor la te am nañ ko bu baax a baax a baax te ñu ci jëflante jaamu yàlla yi macha allah. Euh, uh-huh. uh-huh. euh, mbokk yéen maa ngi numéro téléphone am yaa ngi noonu di affiché si boobu écran bi 77 904 04 85. ma bamtuwaat ko 77 904 04 85 Cheikh bi ñu ngi si cappaandaw émission bi la ngay tàggoo bokk nga xam waaw gannaaw loolu dañu sant yàlla julli ci yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi comme ni nga ko nga xam ne noonu lañ ko commencé woon waaw di gërëm mboolem Sénégal di leen ñaanal yàlla yal na yàlla def jàmm ci réew mi na yàlla dimbale Sénégal dimbale mboolem jullit ñi fépp fuñ mën a ne yal na yàlla taxaw leen ñu ngi ci weeru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne mooy gën ci mbindeef nekk weer wu barke weer woowu noonu da gaa lu bari ci ay xiwal dana dëkkee nit ñi kon ñu ngi ñaan yàlla xiwal yooyu yàlla na bu mu juxump ndax yonent bi mooy yërmande ñeel mboolem jullit ñi macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax baax baax baax ci dalal bi ngeen ngi dalal di leen ñaanal yàlla kazalika yal na la yokk seen mbir si zahir ak ci baatin barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke mboolem wali yàlla yi alhamdulilah barakallahu fiikum